ndakaaru gii bu ngeen ma président ba pare ay projet lu ci mën a yokk fii ci jam naajo bañ jaaree na ko def ndax jamono ngi ñëw tiitalu ma kenn nag jamono ngi ñëw dëkk bi il la ñëw dëkk bi Ndakaaru man Modou Mbacké maa ma ñëw ma ñëw Macky bu ko jàmbar la bu ko góorgóorloo dina ko man na tabax fële ab palais na dàkkaafu nga xam ne bu géej yi réeroon ñu tëm yoon la nag dina xat wax leen ko na ko boole ci ay projet jam naa lu mu gën a yokk ma xeex lu mu yokk ma xeex ci li muy def ma jàpp ni yow rafet naa njort ci yow xam nga lu tax votre nom fi mu situé ci trente-huitième nom parmi les noms de Dieu ba noppi nekk latif bu la nekkee nga nga mën ko tuddee le structure man ko tuddee le jour man ko tuddee lu nekk seulement benn interpellation laa defal pour nga ko président Sénégal dafa war a am mooy lan mooy la ñuy xërëng-xërëng yi di def innal xasanaati yusibna sayiati ak la wax ñu gis leneen lu gën a kalal boo xam ne dana naan yàlla nee na yonent bi nee na Sëriñ Tuubaa nee loolu Sénégal daf ko war a am tawaajal nañ leen ba noppi li ci des comme ñëw nga tombe na waaw du la may jàmm xam nga dafa am loo xam ne nañ delloo si suñuy xel wax dëgg yàlla waaye bu ñu nee rek képp ku aju ci man soowee na mu ko defoon ca ñaar fukki yaa ngi juróom ñett nga xam ne ni ko joxee sa yaram xaraamal na sawar nu yam boobu rek kon lu ko def moo tax dinaa amal ziar boo xam ni insha allah wax naa ko al mbakki yu ahmadu fay li tax ma naan mbakki yu al ahmadu fay la ma gis ci bi bindee loolu autor